kilifa gi tedd gii di cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul aam di leen nuyu ngeen xam ne itam ñu ngi jëm ñu ngi jugee ci bis yu màgg waaye ñu ngi jëm ci bis bu màgg bi bis bi nga xam ne nag mooy bisub Serigne Touba di bis bi nga xam ne mayam gu rëy gii ak li nga xam ne moom la ko sunu borom defal lépp ni mu rëyee. lépp nee na ci bis boobu la ko suñu borom may may googu ci la yàlla nangu ñaanam yépp ba suñu borom defal ko lim doon wut lépp muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon bis boobu tey jii di Cheikh Mouhamadul Mountakha ngeen xam taxawaayam ak jubloom ak nammeelam ak cofeelam gim am ci Cheikhul Khadim nga xam ne mën nañoo wax ne mooy jëmm ji nga xam ne lépp lu ñuy soxla ci kaw suuf muy nekk ab julit xaqan modèle la ci mooy nekk murid saadiq xaqan modèle la ci muy nit koo xam ne dafa fonk doomu aadama yëpp bëgg doomu aadama yëpp kenn ku ne mu yéene la loo xam ne lépp lu mu yéene boppam rek yéene la la ko loolu yi mooy aw doxinam bis boobu di bëgg a ñëw nag moo tax tey jii muy woote kon ñi ngi wax jox kàddu gi cheikh mouhamadul muntaxa al xalifat al aam li tariqati al muridiya ñu bokk déglu ko noonu ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Moustapha ni nga wax noonu rek la mu ne noonu yi ñu wax rek noonu la dara ay ay ay cant rek duma ci dolli dara lu dul ay cant rek di yeesal sunu cant ci sunu borom mi nu booleeg Serigne Touba. di yeesal sunu cant ci Serigne Touba mi sunu lépp tey di yeesal sunu cant ci Serigne Touba mi nga xam ne mooy sunu lépp tey ak ëllëg. di yeesal nag sama bokki jullit yëpp ci fan yii di yeesal sama cant nag ci sama bokki jullit yëpp. ci bis yii nga xam ne moom la ñu weesu rawatina nag sama bokki taalibe rawatina sama dëkkandoo yi rawatina sama dëkkandoo yi nga xam ne ñoom laa bokkal réew mi ñëpp laa sant sant cant gi ma sant gi ma sant sama làmmiñ lott na ci sama làmmiñ lott na ci man koo wax sama bokki bopp yi nee na bokki boppam yi bi ma waxee bokki jullit yëpp ci mën a ñàkkal xaasal sama bokki bokki diine yi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi du ma ci ñàkk xaasal sama bokki kilifa diine yi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi liggéey bi mooy lislaam rek liggéey bi nag mooy lislaam donc nag maa ngi leen di sant ñoom ñëpp kon nag kilifa diine yi ci réew mi yëpp sëñ bi nee na mi ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di leen gërëm ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay. taxawaay bi mat na sëkk. taxawaay bi mat na sëkk. ci yéene ji ci yéene ji. ci pësteef bi ci bi ci yitte ji ci yitte ji. lépp mat na lépp mat na lépp nañ ma ko. lépp wan nañ ma ko. gis naa ko gis naa ko. yëg naa ko ci sama xol ko ci sama xol. sant bu baax kon maa ngi leen di sant bu baax ñoom kilifa yi. gën a feddali sama laxasaay ànd gën koo ànd ak ñoom ci fas yéene liggéey lislaam. te fas yéene naa feddali sama laxasaay fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey lislaam sant cant xam ne nag. geneen cant goo xam ne. dama koy sant sunu borom. dama koy sante sunu borom. moom mi nga xam ne mooy def di dindi. cant googu moo di lan. cant googu moo di lan. kilifa yii ma bokkal Serigne Touba. kilifa yii ma bokkal Serigne Touba. ñu bokk liggéey bi. ñu bokk liggéey bi. Eh, ñoom nag eh, xaw ma nu ma leen di sante. ñoom nag xaw lu ma leen di sante. li ñu ma defal rëy na lool ci man. ndax li ñu la li ñu ma defal rëy na lool ci man. xam naa bu baax doyloo gi nga xam nañ ko dañ lañ ma ko bi. xam naa bu baax doyloo gi nga xam ne moom lañ ma doyloo sama diggante ak sëriñ bi. loolu euh, mu lenn loo xam ne toll na mel ni mbir mu toll mu noonu fi man amut. loolu mel ni mbir. mu toll noonu fi man amut. lu rëy la ci man lu rëy la ci man. tawfeex ju rëy la ci man tawfeex ju rëy la ci man. jëf ju rëy la ju jógee ci ñoom jëm ci man. jëf ju rëy ju jógee ci ñoom jëm si ci man la. sant naa leen gërëm naa leen. sant naa leen gërëm naa leen. di ko seereel sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. di ko booleeg di ko seereel sunu borom. mi nu booleeg sëriñ bi. di ko seereel sëriñ bi muy sunu lépp tey. ko seereel sëriñ bi nga xam ne mooy sunu lépp tey ak ëllëg. la ca des nag. li ci des rek. li ci des nag dama koy jox Cheikh moom laa jox baat li ci nag dama koy jox Cheikh Mouhamadul Bachir mii moom laay jox baat. lu ci mat leeral rek mu leeral. lu ci mat a leeral rek mu leeral ko. lu ci mat a dolli mu dolli ko. kon nag jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa ci ndigalul sëriñ bi dañuy jéem a yëkkati kàddu yi ngir jottali ko bokk jullit yépp ak bokk taalibe ndax ñaari kàddoom yi mu wax rek moo ëpp moo ëpp doole suñ junni kàddu waaye nañu barkeelu te jéem a jëfi ndigalul lim ñu sant ndax xam na bu ñu ko santee rek yàlla danañu ko jàppandal kon eh, ci ndigalu sëriñ bi ñi ngi mi ngi nuyu bokk jullit yépp di nuyu bokk taalibe yëpp di leen fàttali li nga xam ne kenn fàttewu ko muy bisu seexul xadim bii nga xam ne moo jub si di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar te ren jii mu war a dëppoog alxames fukki fan juróom-ñaar ci weeru octobre euh, sëriñ Touba digle woon ko muy bis bi nga xam ne. ci la fi woon ngir liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci nattoom yooyu yi ba suñ boroom jeexal nattu yi nag sëriñ bi xëy bis woolu sëriñ Balla Fally Dieng ko ci taalibe yi xamal ko nag bis bii bu agsee muy ñaan képp koo xam ne mbégam sa mbéga nga sant la ko ci yàlla lépp lu ci waaye man nag li tàmbulee ci ganaar ba ci gileem bu agsee bu ci kenn yéem dara bu ci kenn xeeb dara nga santile ko yàlla ci bis bi bis bi nag xam ngeen ne sëriñ Touba da ko fonkoon lool ba taalif ci xaside yu bëree bëri ci bis bi ndax wax na ne bis bi lépp lu mu am rek ci la ko amee ndax ci la jaayante ji woon liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom faye ko lii mu ko fay tey te ba muy ne ca géej gi nag ci la ko sëriñ Touba junjoon ndax dafa bindoo ne katabtu yow ma sabti inda galwaa بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راد لي العدا وساق لي أغراضا فزت لدى جلواء وعند بأفلي بما به أنير كل ما أفلي موي لي نيو غيستا نيب غيسكو موي لو خامني موم لاكو سيرن بروم فاي كون نك سيرن بي نينا نيكو كو نيكو سيرن بي ديغلي تام بولم كو فيما سا نيك سيرن توبا كوني ووتكو ngir sant la ci Serigne Touba boroom ñaa na loola rekk lay fàttali ndax sëriñ bi ku ne xam na ne da ko wootoon ci jaareem ne fépp waaye nekk na ko fa sant la yàlla bu agsee bi Serigne bi ñibbisee Touba itam Cheikh Mahodou Moustapha wéyal loola ba Cheikh Mahodou Fadil ñëw wax woote ko ne ko ñëpp ñëw Touba ngir sant la ko yàlla ci bis bii kon nag nee mi ngi fàttali li nga xam ne. ñoo ko fi jiitu woon daanañ ko santaane te ndigal la tàmbali woon ci Sëriñ Abdul Ahad mooy njàngum kaamil yi dafa waxoon ne màggal gi nañ koy jàng jàngal bi ñaari kaamil ginnaaw bi sëriñ Saliou Mbacke dolli wàcc ne nañ ko koy defal ñetti kaamil ngir di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu yëglee bis bi bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi mi ngi sant nag ñëpp di sant mboolem ñu bokk lislaam ji bàyyiwu ci kenn rawat na ci xew-xew bi weesu waxal na ko boppam ñëpp dégg yëg-yëg bi mu ci am ci diggam ak Serigne Touba nee na dolliwu ko dara lu may gën a jël léppam jëbbal ko Serigne kon nag Serigne bi nee na mi ngi sant ñu bokk lislaam ji yëpp ndax xam na ne suñ borom moo waxoon ci alxuraan ne yaa ayyuhal lazina aamanu istajibu lillahi wa li rasul iza daakum lima yuhyikum nee na loolu na kon wuyu wuyu ngeen ko kon mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne Euh, diine lislaam ji nga xam ne yéen a moom yéen ko bokk lii ngeen defaat firndeel la euh, seenu dundal lislaam ndax suñu borom moo waxoon ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kon na xew-xew bi weesu ci Masaalikul Jinaan ne taxawaay bi ci bokk julli yépp am yëg na ko mi ngi sant nag taalibe Serigne Touba yi ak njabootu Serigne Touba yi ci ñoom ñëpp itam niñ bàyyee seen yitte bàyyi seen lépp ñoom ànd ak moom bis ba mel nu kawe njortam waaye nag xam na ne li ngeen di jëf sëñ Tuubaa tax ngeen di ko jëf nee na kon mi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen sant itam ci liggéeyam bu rëy bii nga xam ne somb ko ci dëkk bii muy daare Seexul Xadim ji ci dëkk bi daaw naga ni daaw la ko woote woon fii wax ci ay kàddu yoo xam ne ba naga kenn fàttewu ko nam ci soññe woon mu yëg ne taalibe yi jëfe nañ ko ba defe ko noo xam ne kawe na jortam kon nag mi ngi leen ci sant bu baax ci li weesu di leen ci gërëm di leen xamal ne itam euh, li ngeen jëf Serigne Touba tax ngeen jëf ko waaye Serigne mi tax ngeen jëf ko rek tàbbala na leen ko ci biir liggéey Serigne bi mu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan ngeen daye ceeg payug yàlla suñu borom daye ceeg payug Serigne di di ci soññee itam nag ci li ci kanam ñu xam ne liggéey bi li fi aggul rek kenn du wàcc ndax euh, yoonu murit amul wàcc wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal lii mu somb na kon di somb bu rëy sant na leen ci waaye mi ngi leen ci soññ li ci suñ kanam ñëpp gën koo def yi tey xam ne moo fi desoon ci naalu Serigne Touba kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan bis bi itam ñu àgg ca ca bismillahi rahmaani rahim te génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te yàlla suñ moom defal def ci nam def ci tawféex ba ni ko sëriñ bi bëggee rek kenn bañ ko wàcce ngir xam ne bis la bu màgg boo xam ne lépp lu ci waay fas te yéene ko ci ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa daana ci daje moom ndax bis bi képp lañu mas a gis Sëriñ Tuubaa woote ko njabootam gépp itam saa saasu su masaan agsi seen yitte jëpp dañ ko jël jëmee ko ci bis bi kon nag nee na mi ngi fàttali ñëpp ñu xam ne sëriñ bi fonkoon na bis bi lam ci daale woon itam ñëpp dégg nañ ko bañoon bi daa it moo tax mu mu tudd ko ak màggal ne buñ ko woy ak tabaskiwaat kon nag ñu koy waajal ñëpp itam nañ xam ne bis bi waajal gi baax na waaye li ëpp solo nag mooy bisu màggal gi bisu màggal gi kon bu ñu waajal li ko jiitu ba àgg bisu màggal ga lañ cee war def di di di wàññi ko kon loolu itam mi ngi koy fàttaliwaat bokku jur ak bokku taalibe yi ngeen xam ne bis bi ni ko Serigne Touba soso yoon loolu kenn waru ko wàcc ndax jëf lu mu baax baax la nga jëf tam dëppoog digal mooy la ëpp solo waaye la jub ci sama xel nga tànn ko rek mën naa bañ a doon li gën ci yow kon na xam ne lépp lu baax la téréwu ko mi ngi koy mi ngi koy rafetlu waaye nag nañ xam ne lii mooy bis bi bis bi mooy bisu màgg di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bokk di gërëm ñi nga xam ne ñoom bokk Serigne Touba di gërëm mboolem ñi nga xam ne seen maam ya dañoo àndoon ak Serigne Touba ba eh, Serigne Touba gërëm leen tofal ci seen ginnaaw mbooloo te ñoom ñëpp itam ñu ànd ak moom àndeen wa gën a rafet mboolem ñi nga xam ne ñooy taalibe Serigne Touba itam ñëpp di ko xoole jëmmi Serigne Touba ñaan loolu lépp yëg na ko waaye lépp nag dolliwu ko dara lu weesu gën a jël boppam jébal ko Serigne Touba gën a jël boppam jaayante ak jaayante diggam ak Serigne Touba sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñu ngi ñaan ñu àgg ca ak jàmm te day ceeg tawféex day ceeg ngërëmul yàlla day ceeg ngërëmul Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kaddu dégg ngeen ko yi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha dégg ngeen kàddu yi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi fàttali ne it bis bi mooy fukki fan ak juróom-ñaar 17 octobre yemoo ak alxames ëllëg sa di ajjuma incha allah yàlla na ko fekk ak jàmm sëriñ bi it yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool yàgg feek nun lool tal ko man ko ba li mu bëgg a def lépp mu def ko loolu taalibe yëpp nañ ko ñaan dama leen di wax ne sëñ bi li ko nit ñi yéene buñ ko waxee ci seen xol yàlla def ko ndax taalibe dana ñaanal sëriñam ngir yéeneem ju rafet suñu borom nangu ko te ñëpp a ko yéene ndax ni mu yéenee ñëpp ni la ko ñëpp yéenee kon na ñëpp ñaan mu yàgg fi lool waaw ta kaamil yooyu ñuy jàngit Cheikh Bachir wax ko yaakaar ne mooy daan dañ daan nañ wax ne na ko ñëpp def ku ko man ak foo mën a ne rek nga def ko def ko addiyee Serigne Touba te ñaanalaale ci Serigne bi ni ko Serigne Bachir waxee والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري نفى لغير الله سندكار كل أذن لي جره مكار